mi ngi tolloog nag ummatan wasatan ummatan wasatan de moom pire euh, maa ngi koy waxtaan ak sama benn mbokk bu jóge Mali ni ma ca weer yële dañoo mujj jël rekk ay mesures delloo ko ci ummatan wasatan ba fecc yi sax dañ ko limité léegi am na ci xeetu pecc yoo xam ne dañ ko fa tere bil kulliyati ndax dafa ëpp waaw bu feccee nga fecc ndànk rek waaw du du wàññiwul dara waaw nga fecc ndànk rek waaw def ko bu yema yema yema yema yem yema yema yema yema rek ndeysaan waaye benn bi daal moom dafa dafay tax sa personnalité danga koy ñàkk te baaxul nag baaxul nag te itam rekk jar na bàyyi xel ndax itam rekk ummatan wasatan ummatan wasatan ummatan wasatan looy def rekk nga def ko ak sago nga def ko ndànk rekk ba ñu ëppal walaay ndeysaan ndànk ndànk rekk ndànk ndànk rekk lu te àgg fa nga jëm du te àgg fa nga jëm waaye bu fekkee ëpp na ëpp na ëpp na waaye waaye kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara Sidil Hadj Malick radiallahu loolu taxoon mu gedd dem dëkkaale ak yonent bi dem ba foofu fekk foofu mel ni fii mu ñibbisi waaw <laughs> mu dal di ñibbisi mën loo ci dara ba tax na kon nag euh, كان خامل لان كان خامل ام دال داف دان واخ ني رك ينن موسى ام لا واخ بير